bañ konti ko yéen ñëpp ngeen teg ci bët fii laa koy bàyyi ndey ba ko fi ni ngeen ko fiy bàyyee noonu lay mel ñu jox ko commission boo xam ne mooy saytu ñu feebar mhm. kon ndimbal yaa ngi noonu numéro téléphone yi ma lim nag am na Wave am na Orange Money boo ko ci dugal rek baax na incha allahu taala mhm. ma doon jiital numéro yi kon ndey mhm. ñu balaak sa émission ak sa grand cœur ok papa kon dañuy dem rek daal di ànd ak waa régie ñu dëgtal ñu kaawu tay bi ñu ko dal mooy dafa juddu àndal ak demukaayu duusam yéex nañ ko gis nag parce que toog na ba am ñetti fan ci leen doogee nemmeeku na àndul moom léegi nag ci leen jéem parce que opération bi njëkk bi yàlla def na sotti na bi mu sottee nag mu desoon ñaareelu opération ak ñetteelu opération diggante boobu nag la commencé ay ay jafe-jafe nag wax dëgg yàlla jéem nañ ci def nañ lin mën yëpp waaye yàlla sottalu ko léegi nag bi déggee mi ngi noonu mooy wax nii sax bi ñu déggee nag surtout suñ benn mbokk moo ñu ko digal mu ne ñu moom doomam bi ak kii nii ñoo bokkoon même feebar te yàlla def ne bi mu gisee ak ñoom Iran ndaw bi ko dimbalee yàlla jàppale na ko instant bi am na taw tawfeex bu baax tëjee na. ba fu ne nii daanaka ay rendez-vous am yi mujj ci la nekk moo tax ñun tam biñ ko déggee nag ñu sawar ci trop wax dëgg yàlla ñu sawar ci trop waaw di ñëw nag ñun tam comme ni ko xale yi defee ñi ko kii mbokkam bi defee ñam tam di sàkku si dimbal wax dëgg yàlla képp koo xam ne nii daal na nga ñu si ñu jël te yàlla tax. Touré daal moom lañ bëggoon sama doom la yàgg naa seetaan Ibrahima Ndaw waaye waaye xawma fan lañ kaa jaare xëy na tey la yàlla tuddoon na danañ déggante sama benn xarit moo boole ak yéen moom doom ji ak sama doom ji benn feebar lañu woon léegi moom nag doom ji wax dëgg si yàlla sant yàlla jàpp na ngeen ko ba mu wér mooy te ma bëggoon ko ma dimbale yàlla rek fajal ma jërëjëf kon papa mu ngi noonu kaawu bés bi mu noonu nekkati kaabu doy waar. waa xam nga ndey commerçant yëpp a njëkkante ci weeru koor yi. defe gis nga publicité yi. Mhm. ñëpp a ngi publicité ñëpp a ngi wane seen marchandise pour weer wi balaa jeex. Mhm. ñu profité ci waaye ñu nit am nañ weer woo xam ne balaa jeex ñu profité ti mooy dimbale ñi néew doole. Mhm. adduna li ci gën ëpp doole te yonent bi wax ko mooy nekk sa bëgg-bëgg mbokk jullit kii xale bu ndaw la xamoo boo màggee lu muy doon te itam li ko dal mën na maa dal mën na dal keneen kon nag mbir yaangoo lu waaye mën a defal yàlla bul bul yéem loo def bu doon milliard bu ko yéem bu ko xeebit bu di dërëm nga am ni nga ko daan waxee def ko ci wàññiwul dara mhm. kon numéro téléphone yi joxaat leen ko bàyyi leen nag sama doom mu continuer lim ndax ñu njëkkanteeg heure bi 77 656 92 65 77 656 92 65 am na Orange Money am na Wave bi ci des mooy 77 111 01 75 77 111 01 75 am na Orange Money am na Wave

wala nga jël 452 da ngay jiital 77 452 97 45 452 97 45 am na Orange Money am na Wave wala boo nga jël 77 383 13 62 383 13 62 yëpp am na Orange Money yëpp am na Wave bu fekkee bitim réew la muy Western Union nag def leen turu Moustapha Badiane moom ngeen def turam li ci des yëpp bu dee Money Gara Instagram bu dee Ria mun ngeen def sama tur. muy uh-huh. Ibrahima Badiane kon bismillah. Uh-huh. Uh, ñu tàmbali Soukey Sow uh, joxe na cinq mille francs Moustapha Ndong deux mille cinq cent francs Kiné Ndiaye deux mille francs Youssoufa Niang deux mille euh, francs Abo Thiam francs Ndey Daaru Dieng francs Assane Fall cinq cent francs Moustapha Wade francs Jariatou Camara francs Abdoulaziz Diakhaté francs Mariam Sarr mille francs El Hadj Bassirou Gueye 2000 francs Fatou Sarr 2000 francs Nogay Dia mille francs Aminata Fall 1000 francs mille Ngom cent francs Maymouna Tall mille francs Amadou Gueye 1000 francs Oumou Kalsoum Sey joxe na 1000 francs El Hadj Mbaye 1500 francs Ndeye Thioy mille francs Aïssatou Diabang joxe na 3000 francs Ibrahima Dieng 2000 francs Morlum mille francs euh, Lalla Konte joxe na 1000 francs euh, Soxna Oumou Dramé 2000 francs Sarata Samb 7000 francs Fatou Sarr 1500 francs Koumba Tanding 2000 francs Seynabou Sare 5000 francs Ndiaye Sow mille francs Awa Diouf 5000 francs Fatou Diop mille francs Nogoy Niang mille francs Roubatine 1000 francs Aram Diallo joxe na 1000 francs Mamadou Sall 1000 francs Mam Binta Ñaw 1000 francs Seydou Bara Dieng joxe na 1000 francs Awa Diop 1000 francs Thierno Abdourahim joxe na 1000 francs Mam Koumba Diarra joxe na 500 francs Serigne Saliou Mbacké 500 francs Ndeye Marie Dia 3000 francs Aïchatou Diouf 1000 francs Kouri Diouf 2000 francs Khady Mam Khady Diakhaté 1000 francs Aminata Kindou Diallo Diokhène 3000 francs Sali Diop 1000 francs Makhtar Fall 1000 francs Daouda Diop Diokhène 2000 francs Maguette Keita 1500 francs Ahmed Koli 2000 sali Saliou Tine 2000 francs Babacar Tamba Diokhène 5000 francs Aliou Goudiabi 2000 francs El Hadji Diop 1000 francs Wali Fall 1000 francs Daouda Sall 3000 francs Mariam Kobar 500 francs Mame Diarra 1000 francs Tening Ndiaye joxe Diagne joxe na 1500 francs Tening Diagne 1500 francs Ndeye Rocky Diop 500 francs Serigne Madame Mbacké euh, joxe na 1000 francs Penda Mandiaye Ndiaye euh, joxe na 500 francs Ousmane Boy 500 francs El Malick Seck 1000 francs Abdoulaye Seck 1500 francs Mbana Diop joxe na 2500 francs Assane Fall 1500 francs Khady Dem 3000 francs Mohamed Lamine Ndaw 2000 francs Mamour Seck 5000 francs Serigne Ndong 1000 francs Marietou Wagué 5000 francs Thierno Diakhaté 1000 francs Mamadou Ndiaye 6000 francs Moustapha Touré 1000 francs Ndeye Rama Thiam 2000 francs Abdoulaye Omar Thiam 5000 francs Mor Wade itam joxe na 5000 francs papa Mariam Faye joxe na 1000 francs Kodou Gueye 1000 francs Babacar Senghor 1000 francs Babacar Senghor Mbaye 1000 francs Modou Sarr 1000 francs Ibrahima Diarra 5000 francs Ousmane Cissé 1000 francs Safiatou Dieng 2000 francs Mariam Thiané Gueye 2500 francs Serigne Saliou Diallo 1000 francs Serigne Modou Ndong 1000 francs euh, François Roussouli joxe na 2000 francs Moulay Ndiaye 2000 francs Awa Mané 2000 francs euh, kii di Mariam Diouf joxe na 1000 francs Ndeye Marie Sy joxe na 2000 francs Fatima Ndiaye joxe na 3000 francs Seynabou Badji 1000 francs Aïta Ndoye 1000 francs Soxna Mati Diop 1500 francs Dramane Bari 1000 francs Fatou Gueye 2000 francs Mamadou Diaw joxe na 1000 francs Fatou Mbacké Diop 3000 francs Fatou Sakho 3000 francs Fatou Touré 5000 francs Ndeye Fatma Gueye 1500 francs Nima Diémé 2000 francs Babacar Sarr joxe na 5000 francs bay Ndiaye 1000 francs Serigne Cheikh Ndiaye 2000 francs Serigne Fall 1000 francs Mouhamed Falilou Gueye joxe na 1000 francs Assane Thioune 2000 francs El Hadj Ba 4000 francs Ndeye Adama Diagne 1000 francs Abdou Khadra Ndiaye joxe na 500 francs Rama Cissé 2000 francs Binta Mbeng 1500 francs Mouhamed Ndiaye 1000 francs jaari bari joxe na 1000 francs Matar Sarr Mati Sarr joxe na 1000 francs kii di Ansou Gueye 3500 francs Massour Mbaye joxe na 3000 francs Fodé Dia joxe na 1000 francs Dieynaba Camara 1000 francs Ismaïla Keita 1500 francs Abdou Gueye 5000 francs Daba Touré 1000 francs ay Abdou Ndiaye 2000 francs Ale Faye 3000 francs Penda Ngom 5000 francs Astouad 1000 francs Youssou Sène 500 francs Fatmata Bintou Koli 5000 francs Seydou Amadou Ba 2000 francs El Hadj Diène 1000 francs Mohamed Diallo 5000 francs Boury Seck 2000 francs Amina Dia Diop 1000 francs Ami Diaw 1000 francs Sali Diop 1000 francs Astou Mboup 1000 francs Kodou Ndiaye 3000 francs Khadijatou Amdi Diallo joxe na 2000 francs Awa Fall joxe na 2000 francs Kaban Diaby 3000 francs Serigne Mourtala Diouf 1000 francs Fatou Diame Sadi 2000 francs Moustapha Souare 1000 francs El Hadj Gueye 1000 francs Seyni Diop 1000 francs Mbakelo 2000 francs Aïssatou Diam 1000 francs Khadim Fall 2000 francs Abdoulaye Diop 500 francs Pape Ndiaye 2000 francs Abdoulaye Soumaré 1000 francs Amadou Sow 1000 francs Mamadou Gueye 2000 francs Talla mille 3000 francs Pape Moussa Sagna joxe na 1000 francs Mbaye Thiam 5000 francs Ibra Diaw 5000 francs Penda Seck 5000 francs Aram Ndiaye 1000 francs Binta Diallo mille francs Fatoumata Camara mille francs Marietou Ba mille francs Alioune Seye 5000 francs Mastal 5000 francs Makumba Diouf 5000 francs Ndiaga Gueye 5000 francs Astoufal 5000 francs El Hadj Babacar Ndiaye 5000 francs Mamadou Lamarane Diallo joxe na 5000 francs Abbas Fall 5000 francs Ndeye Soumari itam joxe na 5000 francs papa. voilà ñu ci numéro téléphone Lamarane bi nag xaw bi doon cee àttan na xaw ma. Lamarane nekk bu université Gaston Berger. Ah. amoon naa fa professeur bu tudd Lamarane Diallo ah kon kon benn la ci. <laughs> kenn la ci ñëw. kon euh, sama doom numéro téléphone yi 77 656 92 65

ñi mu bokkal ñaan njëkk mhm. defe naa jaamu yàlla yu weeru koor wi kenn du ci denc sa alal lii di la raw mhm. kon fi képp koo xam ne yàlla may na la wërsëg moo xam nu alal ja toll jàppal na yàllaa la bind bind xale bi moo la jox wërsëg xañ ko mbokki xale bi mhm. kon yàllaa ngi lay nattu ba xam ndax danga ko delloo ci moom jaamu ko wala doo ko def kon jaamu yàlla gu mag gàngoo weeru koor bàngoog commerce bàngoog gis ngeen télé yi publicité yi ni mu bëree yëgle gi ni ku ne jaay la nga am ñun nag kii la ñu am tey kii la yàlla di jaay ay jaamam pour ñu jëndanteek moom pour jàppale xale bi doom bisimilah. dafa am promotion si Zahir ak si Baatin. mu ngoog bii nag mooy Baatin. Baatin Cheikh Ahmed Tidiane na joxe na 1000 francs El Hadj Mandian 1000 francs Saliou Mbaye 3000 francs Ibrahima Ka. 1500 francs Babacar Gueye 2000 francs Mame Diarra Faye 1000 francs Rama Diallo 1000 francs Ndeye Aram Yoroba 1000 francs Moussa Omar Kassé 1000 francs Mohamed Diakhaté 1000 francs Ndiaye Tall 2500 francs Ndeye Maguette Diouf 2000 francs Kouna Gueye 2000 francs Amadou Diop 4000 francs Alioune Niang joxe francs Mor Ndiaye 1000 francs Pape Birahim Sène mille francs jaar jir Jama Sall mille cinq cent francs Djibril Gaye deux mille cinq cent francs Hélène Faye trois mille francs Daouda Gaye mille francs Moussa Thiaw mille francs ña ña ña ñaña Bodian ñanama ñanama Bodian joxe na deux mille francs Mbaye Seck mille francs Assane Faye mille francs Fatou Bintou Diouf joxe na mille francs Ndeylo mille francs Ndoumbe Gueye deux mille francs El Hadj Samb mille francs rawan gi 1000 francs Diagalo joxe na 1000 francs Fallou Diagne 1000 francs Binta Ndiaye 1000 francs Mar Yet joxe na 1000 francs Alioune Diallo 1000 francs Dumbal Dol joxe na 1000 francs Kumba Ousmane Sow joxe na 1000 francs Khadim Ndiaye 2000 francs Makhtar Gueye 1000 francs Babacar Samb mam francs Mame Diarra Faye 1000 francs El Hadj Loum 1500 francs kii di Ñima eh, Koli joxe na 2000 francs Abdou Samba Sow 2000 eh, francs Modou Kébé 1000 francs Mamadou Lamine Mbaye 1000 eh, francs Omar Baro 1000 francs Ndende Ndene Dramé joxe na 1000 francs Ndiaye Silla 2000 francs Fatou Fall 1500 francs kii di Basirou Sey joxe na 1000 francs Ndey Awa joxe na 1000 francs Anta mille 2000 francs Ma Bintu Dafé 2000 francs Oumy Diop 2000 francs Maodo Malick Sarr 2500 francs Serigne Mohamed Ndour joxe na 4000 francs Sophie Niass 2000 francs Moustapha Camara 2500 francs Ndey Koumba Penn 1000 francs Cheikh Mbacke Faye 1000 francs Astou Thioune 2000 francs Babacar Kouli joxe na 2000 francs kii di Fatou Ndiaye 2000 francs Ñima Diba joxe na 500 francs Seynabou Ba 4000 francs Oumou Khayri joxe na 1000 francs Amin Ndiaye 2000 francs Mouhamed Lamine Koulibaly 1000 francs Aïda Ndiaye 1000 francs Samba 6 2000 francs Fatou Ngom 1500 francs Chef Tarna joxe na 1000 francs El Hadj Somb joxe na 1000 francs Ndeye Astou Diouf 1000 francs Ibrahima Ndiaye joxe na 500 francs Alioune Sy joxe na 1000 francs Abdoulaye Sène joxe na 1000 francs kii di Khadim Gueye moom itam dal dina joxe 1000 francs papa. ok d'accord. Amadou Kanté joxe na 1000 francs Mapate Diop 1000 francs Mor Diakhaté 2000 francs Oumy Gakou 3000 francs Ibrahima Diop 1000 francs Momi Mbow joxe na 1000 francs Aïda Fall 2000 francs. Maam Sey Diagne joxe na 2000 francs Ibrahima Ka 2000 francs Bàcc Ndaw 1000 francs Ami Agne 1000 francs Alioune Thioub 2000 francs Aminata Lam mille francs Cheikh Ndiaye 3000 francs Cheikh May Ndiaye 2000 francs Edmond Charles Thiaw joxe na mille francs Awa Diouf 1000 francs Babacar Sène mille francs Cheikh Wagne 2000 francs Khadim Dieng 2000 francs Abdou Cissé 2000 francs Ibrahima Ndiaye 2000 francs Chérif Almami Dieng 500 francs Koumba Ngone Fall 5000 francs El Hadj Sini Ngom 5000 francs Sokhna Sarr 1000 francs Mariam Gaye mille francs Ndeye Leye 1000 francs Fatou Diatta 1000 francs Ndioba Diagne 2000 francs Dame Kane 1000 francs Abdoulaye Wade 1000 francs Oumy Diop 1000 francs Abdoulaye Lo 1000 francs Mané Ga Mané Gaw joxe na 1000 euh, francs Daouda Faye 3000 euh, francs Alioune Badara Diallo 2500 francs Moustapha Wade 500 francs Sayer Diagne 1500 francs Babacar Seck 5000 francs Astou Ndiaye 1000 francs Aïchatou Faye 1000 francs Mariam Soda Mbacké joxe na 2000 francs Baye Saliou Seck 1000 francs Ibrahima Dieng 1000 francs El John joxe na 1000 francs Atoumane Dieye 1000 francs Moustapha Djité 5000 francs Alioune Sène joxe na 5000 francs Alioune Sène joxe na 500 francs Pape Alioune Fall 1000 francs Cheikh Benjamin Mbaye Nogay Sadi 2000 francs Idrissa Sarr 1000 francs Saliou Kalima Bassine 1000 francs Aminata Gadigo joxe na 2000 francs Anta Diadiallo joxe na 1000 francs Ima Jigéen Diouf 1000 francs Khady Thiam 1500 francs Cheikh Yatma Diop 2000 francs Ndeye Astou Mbengue francs Ndiouga Diagne 2000 francs Marie Diagne francs Fatma Dia Fatimatou Dia 1000 francs Demba Dieynaba Thior joxe na 2000 francs Anta Gueye 500 francs Ibra Diagne 1000 francs Thierno Thiam joxe na 2500 francs Yatma Fall 1000 francs Aminatou Sow joxe na 5000 francs Ibrahima Dieng 1000 francs Bathie Diouf 1500 francs Aminata Dramé 2000 francs Daouda Dieng joxe na 1000 francs Elage joxe na 1000 francs Massayer Sy 2000 francs Ngour Sarr 1000 francs Rokhaya Diagne 3000 francs Fatou Sène 1000 francs Moustapha Dia 1500 francs Badou Diouf Babou Diouf 1000 francs Abi 6000 francs Ndey Fall 3000 francs Babacar Ndiaye 500 francs Bousso Diouf 2000 francs Fama Sène 1000 francs Adji Diouf 1500 francs Aïssatou Ciss 1500 francs Diarra Gakou joxe na 1500 francs Saliou Sarr 2500 francs Ibrahima Diallo 1500 francs Sidi Diakhaté 1000 francs Marie Cissé 2500 francs Francais Miss Diédiou joxe na 1000 euh, francs Seydina Ousmane Gueye joxe na 4500 francs Nuhuru Babou joxe na rek 2000 francs Alioune Diémé 2000 francs Aïchatou Ndiaye 1000 francs Mamor Ndiaye tam joxe na 1000 francs papa. dañuy bàyyi sama doom nag mun ndax daa <laughs> dafa woor te xam nga koor ak wax dafay métti <laughs> waaye ñu jox leen numéro yi rek 77 656.

983 13 62 yëpp am na Orange ne yëpp am na Wave bu fekkee nag da ngeen koy def Western Union ngeen def turu Moustapha Badiane ki ñuy dimbale mooy xale bu ndaw bi ngeen gis li mu àndal nag neexul a xool man mënuma koo xool mhm. sama doom mënu koo xool lu métti la kenn ku ne bu daloon sa doom defe naa yaa ngi ci itti lu la ci yàlla dimbale kon lu waaye denc ci alal wala nga nar ko génne ci azaka wala nga nar ko yóbbul nit yemale ko fii ci grand cœur bi def ko ci numéro yi ñu dimbalee ko xale yi moo gën kon sama doom nag ñu bàyyi la nga dem ci euh, orange money waaw dama la koy xaajal ndax doo ko àttan ndax koor 210 320 21 13 2000 francs 210 320 21 13 4500 francs 210 322 20

412 14 41 2000 francs 210 412 21 24 daal dina joxe 5000 francs 212 411 10 01 5000 francs 210 412 10 59 5000 francs 210 411 10 03 5000 francs 210 412 12 cinq joxe na mille francs

210 412 12 29 5000 francs 210 412 12 14 5000 francs 210 412 11 14 5000 francs 210 410 13 03 5000 francs 210 412 20 08 5000 francs Papa. jërëjëf doom ñu bàyyi la nooyu tuuti rek <laughs> defe naa ne des ci heure bi xaw naa bëri tuuti sax. Mm-hmm. waaw 77.

wala ngeen jël 77 452 97 45 452 97 45 wala ngeen jël 77 383 13 62 383 13 62 sama doom yi yëpp am na orange moo ne am na wéer waaye bàyyi loo leen xel nag ci ne sànni jamra lañ koy tuddee xaw ma sànni benn xeer jam fukki picc lañ koy tuddee waaye jaamu yàlla ko mag gaa ngi nii man de sama alal bu ma koy dugal ndey ci social laa koy def koo xam ne boo ko dimbalee yàlla dimbale la moo gën koo xam ne boo ko dimbalee moom mënulaa dimbale morooma mënulaa dimbale mhm. te yenent bi nee na man kaana fi xaajati aq yi kaana laaw fi xaajati yi képp ko bëgg yàlla taxawul la say soxla fajal la ko moom mi la ko teg mm-hmm. dalay nattu nga ba xam ndax danga taxawu nit ci ay soxlaam mm-hmm. fajal ko ko mooy xale bii képp ko taxaw ci mbiram jàppal na yàlla mën naa taxaw ci say mbir mm-hmm. yàlla tëlewul dara kon jam yàlla gu mag gaa ngi nii taawunoo alal birri wa taqwa wala taawunoo alal ismi wal odduwaan doom bismillah 210 415 15 46 000 francs 210 414 21 17 500 francs 210 414 21 12

320 20 54 2500 francs 210 322 20 45 joxe na 1000 francs 210 320 21 11 1000 francs 210 320 10 04 2000 francs 210 320 21 02 joxe na 1000 francs 210 320 20 10 joxe na 2000 francs 210 320 20 14 1000 francs 210 320 20 51 joxe na 1000 francs 210 320 20 12 2000 francs 210 320 20 21 1000 francs 210 320 19 13 2000 francs 220 320 21 20

210 320 20 52 joxe na 2000 francs 210 320 21 02 2500 francs 210 320 21 21 joxe na 1500 francs 210 320 21 12 1500 francs 210 322 20 06 2000 francs 210 322 21 10

joxe na 2000 francs 210 321 10 11 04 joxe na 3500 francs 210 320 21 12 joxe na 10 000 joxe na 1000 francs papa. waaw doom ma am nag lu ma fàttali. Mhm. xam nga ñun dañuy am problème léegi léeg mhm. ci téléphone yi. nit dalay oo ne la dama am kaa man ma defee ne day joxe sax. Mhm. mais danaan la dama am kaa. numéro yi ngeen dégg du numéro wax ku feebar. ku am ku feebar indi ko ci télé bi boo ñëwee danañ la accueillir wax la nooy def mm-hmm. numéro yi ma leen di jox ngeen ci